wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ngi dellu di sant yàlla di julli ci yonent bi di leen nuyu di ñaan yàlla mu defal nu jàmm te defal leen ko di ñaan sëriñ Salihu Mbàkke mi yàlla teg ci sunu kanam yàlla yàggal ko fi lool te dolli ak wéram xam ngeen ni bi seen weesu ñu ngi tàmbali woon xissatu sayidna abi bakri ni siddiq waxtaanoon nañ ci ba toll ci fiñ jaayante ak moom ginnaaw bu ñu jaayante ci bis bu jëkk bi te mooy jëkk ñuy denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nit ñi jaayante bam ba jaayante gi wér lañu door a jublu ci waajal yonent bi denc ko waajtaay wi yaakaar naa waxtaanoon nañ ci jamono yi ñu indi siiratu rasul ba tax na du jar euh, defaat ay leeral kon yonente ñu ngi ko daal di denc ñu ngi ko denc guddig àllarba wax nañu ni dañ koo sang ci kaw ay yéreem abbas ak kañuy wax alfadl ak xusam ñooñu ñaari doomam lañ ñoo doon jàppalante ci euh, yéwénal ko ak Usaamatu mu Zayd ak ku ñuy wax Chiqraan te moom itam ab surga la woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ka ñuy wax Aws bnu Xawli al ansaar yi teewe na ko ñi ngi ko doon waajale ci teen bu ñuy wax al garas teen boobu nag Saad bnu sama moo ko moom ma nga ca Qubbaa abbas ak ñaari doomam yooyu ñoo doon wëlbati yonent bi usaama ak chaqraan di sotti ndox mi ali ibnu abi di ko sang ci kaw mu mi sallallahu alayhi wa bi mu koy sang it mi ngi wax ni bi abi anta wa ummi ma atyabaka hayyan wa maytan jote naa la sama ndey jote naa la sama baay dara gënu teey ci jamonoy dund ak ci jamonoy dee bi ñu noppee ñu sàng ko ci ñetti mbalaan yu jóge yaman yu weex yu bàyyi ko ci wëttin wax nañ ni càngaay la nag mbubb amu ca kaala amu ca ginnaaw bu ñu ko sangee moom yonente bi ba sàng ko dañ ko teg ci kawub lal jullit yi nag di ñëw bari mbooloo ñu ñëw rekk jullee ko daldi génn ñeneen dugg siwaat wax nañ ni benn ilimaan jiitewu leen ci julle gi biñ demee ba góor ñi jeex jigéen ñi dugg si ka jëkk a dugg mooy abu bakar ak Omar biñ duggee it lañ wax mooy asalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu eh, mbooloo mu bokk ci mu muhaajiroon yi ak lansaar yi ànd ak ñoom lu toll ni eh, li xacca néeg ba rek ñëpp dugg nañ ni Aboubacar nuyoo noonu la Omar nuyoo mbooloo mi it noonu lañu nuyoo ñoom itam ñu rang rang bu jekk waaye nag kenn ku ne dafa jullee rek jiite amu ci comme ko waxoon kon ginnaaw bu loolu jàllee nag ba Aboubacar delluwaat ca suba sa nag muy guddi googu ñu ko dencee ca suba sa wax nañ ni biñ demee ba ñëpp jullee ba noppi. doon nañu werante ci fuñ ko war a denc waaye Aboubacar ni dégg naa yonent bi mu wax ni day amul benn yonent bu ñuy jël ak room te du dañ koy denc fa ñu ko jële Sayyidna Ali yu ni waaw man mi de loolu dégg naa ko loolu moo tax ñu yëkkate laltaay gañ ko lalaloon dal di koy denc foofu sallallahu alayhi wa sallam kon gannaaw bu ñu ko dencee ba noppi nag ca suba sa la nit ñi ñëw Aboubacar dem ci jàkka ja ñu jaayanteeg moom jaayante gu matale ginnaaw bu ñu jaayantee ba noppi nag xutba bi bakkar def moo nekk nii dafa dal di yéeg ci kaw mimbar bi di sant yàlla tagg ko daan yéen dañu de mbir mi féetale ngeen ma ko féetale ngeen ma seen mbir te xam naa ni gënuma ci yéen gënuma leen kon nag su ma defee lu rafet na ngeen ma dimbale su ma wàccee aw yoon na ngeen ma jubbanti dëgg nag nekk ci dëgg dana tax nit a am kóolute waaye fen nag moom xiyaana la ay wuruj la na ngeen xam ne nag nit lu mu néew néew doole ci yéen moo am doole fi man ba ba ma koy jox dëggam waaye nag boroom doole yit de na ngeen xam ne bu nekkul ci dëgg mooy ki néew doole fi man ba ba ma koy teg ci aw incha allah daal di nag kenn ci yéen du bàyyi ji bu mu bàyyi jihaat ndax jihaat di mbooloo mu ko bàyyi rek yàlla dana leen toraxal dee leen ma topp nag li fekk maa ngi topp yàllaa ko yonenteem waaye saa ba ma moyee yàllaa ko yonenteem nag ak topp waratu leen ci man bu mu waxee loolu yi la ne bismillah leen julli ji yal na leen yàlla yërëm kon loolu mooy xutba bi Aboubacar def kon Aboubacar xam ngeen ni xilaafa gi yàggut ci ñaari at rek lay toll waaye nag bari na lool ay jëf yu am solo yum ci jëf li gën a feeñ ci yam jëf ba ci jëkk mooy wéyal yónni gi yonen yonente bi yónni woon armam Usaamatu bnu Zayd wéyal gu ko Aboubacar wéyal bokk na ci li ëpp solo ci ay jëfam lu bari ci nettalikat yi histoire yi dañoo wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa yebaloon eh, Usaamatu bnu Zayd radiyallahu anhu mu ànd ak juróom-ñaar téeméeri jàmbaar mu yebal leen Saam ba mu demee ba toll ca béréb ba ñuy wax zi xasab la dégg ñu ne yonente bi dafa wéradi ba mu taaxeerloo fafa ab diir la yonente bi noppalu loolu magi saxaaba yi daje di xalaat te arab yi ñu ci bari dal di murtad ndax am na ci ñoo xam ne dañoo wax ni kii du ab yonent ndax bu doon ab yonent du dee ñenn ñi ni ñoom xam nañ ni ab yonent la waaye nag asaka yiñ daan joxe moom seeni alal moom duñ ko joxati kenn mu doon ak jaaxle Abubakar dajale magi saxaaba yi waxtaan ak ñoom ci luy pexe ñoom ñu ne ko gannaaw arab yi dañoo murtat ñu ci bari murtat nañ Usaama mii doon waaj a dem moom dañ ko war a wax mu dëpp bañ lijjanti lii ba noppi waaye am na lu ca teg mu giñal leen ci yàlla ni leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ni amul benn buur dul moom ne bu ma gisoon ay xaj ñuy diri tànki soxna yonente bi sax di du tax ma delloo si arme boo xam ne yonente bi moo ko waajal du ma dëpp arme bu yonente bi waajaloon loolu xalaat ko benn drapeau bu yonente bi façon ma di ko fecc déedéet loolu de bokkul ci sama xalaat moom daal ni Usaama na wéy ci liñ ko doon def loo Abubakar euh, sàkku ci Usaama moom mi doonoon njiitul armo bi ni ko dama bëgg nga bàyyil ma fi Omar may disoog moom ndax dana mën a nekk Usaama jox ko ndigalul mu téye Omar ci wetam di ko dimbandiko noonu Usaama dal di tegu ci yoon wi Abubakar di ko gunge di ko dénk dox moom lu yàgg ba Usaama daa mujj ne ko teemaa wàcc boog nga war mun ko déedéet doo wàcc te duma war demal rek ndax jéego yi may jéggi euh, maa ngi koy fàggoo ab yool fa yàlla bi Usaama demee géerug arab gum romb da am xalaat ci ni ñii de bu ñu amutoon kàttan mbooloo mu toll nii duñ génne fi ñoom noonu la Usaama demee dajee ak waa Rom xeex ak ñoom dàq leen dellusi ci jàmm amuñ benn jafe-jafe loolu mooy li Aboubacar jëkk taxawal gannaaw bu mu wuute yonent bi ci ay jëf yu am solo bu ñaareel bi mooy xeex ak ñi murtat ñu bari dañu murtat ci jamono boobu ñooñu nag mooy ñi nga xam ni islaam saxagutoon ci seeni xol am ci ñoom ñu jàpp ni nubuwa gi ay pexe la rek ñu daal di woote ak nu nubuwa am ci ñoo xam ni dañoo wax ni ñun xam nañ ni Muhammad ab yonent la waaye nag suñu alal yi ñu daan joxe asaka nag ñun dootuñu ko jox kenn bay ndaw yi Abubakar yónni woon dañ leen a gàntal loolu nag doon lu diis ci jullit yi ndax arab yenn yi murtat nañu ñu tiit ni Madina yàlla buñ ñëw dal ci kaw ginnaaw bu Abubakar yabalee armub Usaama ba mu dem tiitaange yépp dal na leen wax nañ ni bi mu leen di gunge da leen doon dénk dénkaane bii nee leen bu leen wor bu leen mitiital kenn bu leen rey gone gu tuuti bu leen rey am màggat mu dem ba jeex bu leen rey jigéen bu leen gor ak garab ak tàndarama bu leen ko gor bu leen ko lakk bu leen fekk ab gàtt yi ngeen di ko rend mbaa aw nag mbaa ak gilem te jublu leen ko lekk yàq bu leen def dara ci yàq da ngeen romb ñoo xam ne dañoo wéet di jaamu yàlla ñu leen tudde ay labbe ñu ñu bàyyi leen leen ak la ñu nekk bu leen leen wax dara loolu ndenkaan la bopp Aboubacar moo ko dénkoon Osama ci jamono bi muy dem biñ nekkee ci biir tiitaanga yooyu Abubakar daal di taxaw temm ci ni kon day xeex ak ñi murtat ndax mbirum mu Kazzab ca Yamaama dafa daal di fes coow la bari fa lool ñu naan ab yonent la ka ñuy wax Tulayha moom itam mboolem girug Tayyi ak Asad dañoo murtat topp ko Xatfaan ñoom itam dañoo murtat ngir topp Uyayna ibnu Hisn ndax Uyayna na dañuy yonente bu bokk ci sun ñaari kuréel yi muy Asad ak Ghatfaan moom ma gënal yonente bu bokk ci waa Quraysh te comme Muhammad faatu na Tulayha nee na ab yonente la te mi ngi dund kon duma fi demaat ci benn yonente léegi kii laay topp ba ko toppee biirug Ghatfaan gépp topp ko ci moom Uyayna ibnu Hisn moom yi léegi nag ndaw ya yonente bi yabaloon ci béréb yooyu muy Yamaama yabaloon leen ca giirug Asad ak ñeneen daldi indi seeni bataaxel ci Aboubacar xamal ko xew-xew ya fa xew loolu nag la Aboubacar dogoo ci xeex ak ñoom bi mu ci dogee mu dajale saxaaba yépp diisook ñoom ci ni leen lu ci seen xalaat waaye xalaat yi wuute Omar ni ko waaw ana nooy xeexeek nit ñi te yonente bi da newoon na dañu ma digal may xeex nit ñi ba bañee seere ni yàlla rekk buur waaye bu ñu ko xasee wax nag seen deret ak seen alal mucc na ci man ndara ci àqam te loolu yàllaa leen di esaabal boppam Abubakar ni ko diggante julli ak asaka de ku ko xàjjale danaa xeex ak yow ba ba ngay dellu si ndax asaka mooy àqi alal daat ni buum guñ daan jox yonente bi képp buñ ma ko teree dinaa xeex ak ñoom ba ba ñuy dellu si waat Omar nee na bi ma gisee nag xolub Abu Bakar moom yàlla leeral na ko ci xeex ci laa xamee ne xeex bi mooy dëgg xeex ak ñoom mooy dëgg Abu ni ko waaw ñuy def wax yu gi moom dagg na yonente bi nekkatul diine mat na sëkk bi wax yu gi jeex dañ fi nekk dund wax yu gi di mbir mi di wàññi ko ci suñu loxo ne ko loolu sama xel xalaatu ko daal jóg fas yéene xeex ak ñu ñi nga xam ne dañoo murtatan jëlee nañ ci soxna Aïcha radiyallahu anha mu wax ni bés bii day bés bu tàng-tàng la sama baay dafa génn ci jaasim war ci gëléem gi fas yéene jiite xeex bi ali ibn abi talib ñëw ba jàpp ci nosub giléem gi ni ko dencal sa jaasi jii dama lay wax la la yonente bi waxoon ci bisub uxat mu ne ko ah mu ne ko dencal sa jaasi ji laa lay wax loolu la la yonente bi waxoon ni ko bul nu jàqloo ci sa bopp ndax waat naa ci yàlla ne yow fii nu toll nii buñ la rayee islam dootu taxawati mukk benn programme dootu fi amati ibnu Xutayba ni mu ni arab yi bi ñu murtatee ñu bari dañoo murtat ba mu lu néew a néew Aboubacar xeex ak ñoom bañ teguwaat ci yoon moo fatxu al yamaama rey Musaylimatul Kazzab kon noonu la Aboubacar taxawee ci xeex bi ana num num demee nam ko nase bi Osaama dellusee la Aboubacar daal di programmer armo yi mu war a yabal daal di fas drapeau yi fas na fukki drapo ak benn mu fas benn jox ko Xaalid ibnul Walid yabal ko ca Tulayha ibnu Xuwaylid al ni ko boo noppee ci moom nanga dem ca Malik ibnu Nuwayra moom itam dégg naa ñu ne murtat na ñaareel bi mooy Ikrima ibnu Abi Jahl mu fasal ko ab drapeau yabal ko ca Musaylimatul Kazab ñetteel bi mooy almuhaajir ibnu abi umaya mu yebal ko ci soldaar yi al ansiyu al aswadul ansi ni ko boo fa jógee nga dem Kenda ca Hadramawt bu ñeenteel bi mu yebal Xaalid ibnu Saïd ni ko na dem ca peggi Saam juróomeel bi Amr ibnul Xaas mu yebal ko ca Xudaa ak Wadia juróom benneel bi mu yebal Xuzayfa Xuzayfa ibnu Muxsin yebal ko ca waa Dabba juróom-ñaareel bi mu yebal Arfaja ibnu Harsama yebal ko fa ñuy wax Mahara juróom-ñetteel bi Surahbiil ibnu Xasana mu yebal ko mu topp ci ginnaaw Ikrima ibnu Abi Jahl juróom-ñeenteel bi mu yebal Ma'nu ibnu Haajiz mu yebal ko ci Bani Sulaym ak ñañ àndal ci waa Hawaazin fukkeel bi Suwayd ibnu Muqrin mu yebal ko Tihaama ca Yaman fukkeel bi ak benn mu yebal al Ala ibnu al Hadrami ca Bahrayn loolu lépp euh, des na ci jaar ci ak gàttal waaye noonu la Aboubacar taxawale xeex bi mu doon xeex ak ñi murtat kon ñooñi ñooy ñi Aboubacar tànn ngir ñu xeex ak ñi murtat kenn ku ne mu fasal la ab drapeau jox la kon noonu ñu indee fukk yooyu ak daan rek teg la leen daanaka xeeti arab yëpp Aboubacar yónnee woon na ci ndax daanaka ñëpp a murtat kon mu doon itte ju rëy ju yàlla teg ci loosu Abubakar doon it itte ju rëy jum teg ci loosu ñi nga xam ne ñoom la Abubakar yebal war ngir ñu war ko lijjanti bi loolu jàllee Madina kon ñu néew fa des force bu néew moo fa des Abubakar des ci Madina yebalul Omar yebalul Ali ibn Abi Talib ak Zubayr waaye daf leen a desal ci wetam ngir di diisoo ak ñoom bérébi xeex yi nag bi ci ëpp importance mooy xeexu ba ñuy wax xeexu busaaxa Boubacar dafa yebal walit ngir mu xeexi dafa yebal Xaalid ibnul Walid ngir mu xeexi ak Tulayha ni ko boo noppee nga dem ca Malik ibnu Nuwayra ca Buta xaalit yebal Ukaasha ibnu Muhsin ak Thabit ibnu Aqram ñoom biñ jiitoo xibaal mi doon mbokkum tulayxa dajeeg ñoom bi ñu dajee ñoom ñaar ñu ñu rey mbokkum tulayxa moom tulayxa moom nga xam ni ca la Xaalid yeble woon ngir di ko woowaat ci diine bëgg bu nangoo dellu si baax na bu nangoo te dellu si ñu xeex moom ñaar ñi mu yabaloon dañoo daje ak mbokkum tulayxa benn mi magam mbaa rakkam biñ dajeeg moom dañ ko rey tulayxa dégg ni am na ndawi Xaalid yu rey rakkam mu daldi génn moo mbokkam mu ñuy wax salama Tulayha moo rey Ukaasha ibnu Muhsin mbokkam moom yi mu àndaloon rey Saabit ñu daal di leen di rey daal di delluwaat Xaalid bi mu ñëwee ba agsi fekk ñaar ñooñu ñu rey leen jullit yi am lool njàqareel xol am lu leen naqari ñu daan ñaari kilifa ci kilifa jullit yi ñu rey leen Xaalid daal di ànd ak armo bi jëm bu saaxane continuer daal ak armo Tuleyha fekk Tuleyha waajal na ko moom it xeex nañ xeex bu tar Tuleyha bi ñuy xeex mi ngi muuru daan kaala di di di lëmasu ba kenn du ko gis daanaka di woote ni ab yonent la on yey na tub nu xes na moom ko doon jàppale di xeex ba xeex bi tar ba tar boo mi ngi ànd ak juróom-ñaar téeméer nit di xeex ci ñu bokk ci benn fasara di ko jàppale ci xeex ba bañ xeexee ba xeex bi tar on yey na ñëw ci Tuleyha ni ko ndax jibril ñëw na Tulaay ni ko déedéet ñëwul mu dellu continué di xeex di xeex di xeex mu jaam mu jël sax ni ko ñàkk ful la jibril ñëwagut mu ne ko déedéet ñëwagut léegi ooyee na dellu di xeex ba mujj mu del sax ni ko eh dégg nga ngi bëgg a somm nag jibril ñëwagut ba tey mu ne ko ah kay jibril ñëw na mu ne ko lu mu wax. lu la jibril wax mu ni ko nee na ma danga am da am ndënd mu ndënd mu mel ne am ndëndam da nga amit waxtaan woo xam ne doo ko fàtte ah yaay na ko yàlla xam na da nga am waxtaan woo xam ne doo ko fàtte daal ni waa ba ni fasara dëpp leen ñu dem kii ab fenkat la ne mbooloo mu daal mbooloo moom àndaloon moom mu juróom-ñaar téeméer nit yem àndaloon ngir jàppale ko dañoo daal di topp ci ginnaaw ñu dem seen yoon fekk tëlay xam mu doon woote yonante gi préparé woon na aw fasam waajal ak gileem waajalit ak gileem ngir soxnaam suñuy wax nawar waaye bi mbooloo mi këppoo ci kawam ba gisut lu mu xam mu waru fasam ni soxna si waral fas soxna si war ñu daal di tëgg burti mu daal ne eh yéen ba nii fasara ku ci mën a def nii mucc mook soxnaam na ko def noonu la Tulayha dawe dem làqtu ji saam ba mu demee mu wàcc ci jërug kulab waaye ginnaaw bi mu dégg ñi ni asat ak rattaan ñëpp jëbbalu nañu mu dal di jëbbalu foofu la nekk ca kulab ba ni mu dee ba ba ba ba ni Aboubacar faatu wax nañ ni romb na foofu ci peggi Madina doon aji doon omra ji ñu wax Aboubacar ni ko tulay xaa ngi ni Aboubacar ne ah, lu ma ci lu may def ci moom comme jëbbalu na gannaaw jébbalu na kay baax na bi Xaalid ibnu Walid gañee Tulayha yi ak Bani Fasaara dañ daal di ànd ñoom ñëpp di kat daal ni lañ génnoon dugg siwaat nañ ci kon gëm nañu yàlla akub yonentam te fas nañ yéene nangu ab atteem ci sunuy alal ak ci sunuy bakkan ña toroxlu ñëpp daldi di jaayante ak Xaalid jir yu bari daal di jébbalu jaayante ga it yax ba mooy lii xaalit dinaa leen kule rek yàlla war na leen ni da gëm yàlla gëmub yonentam da ngeen taxawal julli da ngeen joxe asaka te da ngeen jaay seeni doom ak seeni soxna it da ngeen leen jaayanteel ci lool yi waaye nag bi ñuy jaayante it nag gërug asad googu ak xatfaan koo ci xam ni lakkoon nga këri jullit yi mbaa nga nitiitaloon ab jullit mbaa nga jalgati woon islaam day wax ne nañ ma ko andil buñ ko andee mu lakk ñenn ña ñenn ña mu toj seeni bopp ci ay doj ñenn ña mu yéegal leen ba ca kaw doj ya mu xalab leen xalambaayu daanu ñenn ñi mu jatt leen ci ay ten dal di yabal yónnee ca Aboubacar wax ko ni mu doxale ne ko jëbbul niñ waaye ña ci jotoon def yu ñaaw ci jullit yi buñ bañ morsatee lu mel ni lañ leen defoon fay naa leen ko loolu kon mooy ni Xaalid doxe ca busaaxa ni ko loolu ni ko foofu leer na lijjanti nañ ko léegi kon mu des Yamaama te kañuy wax mu Musaylimatul Kazaab nekk fa Musaylima nit ku tuuti la woon euh, ñaaw kanam ni dafa ñëwoon ci yonente bi ànd ak euh, délégation bani xanifa bi mu ba gis yonente bi ba jébbalu daal di delewaat ca dëkkam ba dello nag la woote ni moom eh, dañ ko booleeg yonente bi nu bu wooy léegi ab yonente la comme moom bam ko wootee it banu xanifa nangu ko caa topp mu bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leetar di ko wax ni ko moog moom ñoo bokk yonente léegi yabal ñaari ndaw ci yonent bi biñ demee yonent bi laaj leen leen yéen nu ngeen ko jàppe ñu dëggal ko ni ko ñu koy gëm nañ ne ab yonent la yonent bi ni leen damaa xam ne ndaw waree su koo rey ni ndaw ndaw luñ yónni kenn waru koo rey ni kon ma rey leen leetar bi leen Musaylima yónni woon moo nekk nii dafa bind min Musaylimata rasulillahi ila muhammadin rasulillah amma baadu fa inni ushriktu maaka fi l amri wa inna lana nisfa al ardi wa li qurayshin nisfuha walakinna qurayshan qawmun yactaduun ni ko leetar bii mi ngi jóge ci musaylima mi doon yonent bi yàlla jëm ci muhammad mi yonent bi yàlla ma di la xamal ni mbir mi dañ ma ko booleeg yow léegi genn wàllu suuf si noo ko moom waa Xuraysin moom genn wàllu suuf si waaye nag waa Xuraysin dañoo doon nit ñuy jalgati yonente bi leetar bi ma ko tontu mooy bismillahi irrahmani irrahim min muhammadin rasulillahi ila musaylimatal kazzab amma baadu fassalaamu ala man ittabaa alhuda fa inna al arda yuurisuha man yashaau min ibaadihi wal aaqibatu lilmuttaqin mu bind bismillahi irrahmani irrahim bataaxal bi mi ngi jóge ci Muhammad mi ndawul yàlla jëm ci Musaylima mi di fenkat ni ko maa ngi nuyu képp ku nangoo topp ak njub di la xamal ne suuf si suufu si yàlla moo koy jox ku ko neex ci ak ci ay jaam mujj mujj gu rafet nag ñi amug ragal yàlla ñoo koy am ci kaw suuf bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu Abu Bakar yable ci mu ci ñi murtad mi ngi ak Ikrama ibnu Abi Jahlin comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi mu ànd akub arme mu yabal leen ci Musaylimatul Kazab ginnaaw ba mu ko yabalee mu fasal Surahbiil ibnu Hasana ab drapeau ni ko nga topp ci ginnaaw mu ginnaaw Ikrima ngir loolu ay plan de guerre dañuy bëgg bu ñuy jiitoo ñu dem ba nekk di war a sonn ñi leen di jàppale door a agsi waaye Ikrima ibnu Abi Jahlin ba mu demee moom dafa dajeek Musaylima rek mu gañee ko ngañaay lu métti dal di koy dàq ba mu ko dàqee léegi Surahbil ibnu Hasana bi mu agseegul dégg nañu ni gañe nañ Musaylima mu daal di toog ci yoon gañe nañu Ikrima mu dal di toog bañ a àgg Ikrima bi mu bindee Aboubacar lettre di ko xamal ni ko ñun kat dañoo dem wàññee dañoo ëpp doole Aboubacar dañu ko fexeel ba bu ma la gis bu ma gis bu fi del si mukk di manquil nit ñi na nga jógee foofu jàll ca Xusayfa ak Urfa ja dem jàpp jàppale leen ngeen xeex waa Oman ak Mahara te dem fekki Muhaajir ibnu Abi Umayya ca Yaman ak Hadramaut waaye bu fi jaarat ginnaaw bu mu bindee tontu loolu yi yónnee ko Ikrima ibnu Abi Jahl la bind bataaxel Suraxbiil fam tax fam nekkoon ni ko na nga fi toog yow ba Xaalid ibnu Walid fekk la fi bi Xaalid jógee ca Butaax ñëwaat ci Abubakar daal di sàkku ak njëggal ca tuuma yi ñu ko fa tuumaaloon xaj loolu sax mënees na ci bañ defal ak guddal mënees na ko gàtt ndax dañoo wax ni dafa am ku ñuy wax Malik ibnu Nuwayra dañ koo jàpp ba indi ko ñenn ñi ni wax na ni ashhadu an laa ilaha illallah seere na baati ngëm yi ña ca des ni déedéet seere wu ko bi ñu nekkee ci biir lënt moom yi ñu denc leen di xool nu ñu ciy def mu doon guddi gu sedd bi ñu leen waxee ni leen nugal mm, nugal leen prisonniers yi fekk baatu nugal boobu moom ak rey lay tekki ci làkku birab boobu ñu daal di leen di rey biñ leen reyee nag Xaalid amut lu may dégg yoo xam ne mu ne lu mu doon ñu ne ko rey nañu mbooloo moomu ne ah loolu de mooy yàlla dogal waaye nag bañ fa daataan jógee takk gam takk soxna Malik ibnu Nuwayra tam doonoon soxna su rafet loolu moo indi coow li ndax Omar ca saase xam ngeen ne Omar ko amul tàng la dafa daal di wax ni Aboubacar Xaalid day jaaseem xumaag na ndax rey na jabare ab jullit rey na ab jullit takk jabar ni ko nag foog nga lijjanti ko Aboubacar ni ko Omar teggil salaam mi ñu wi ci Xaalid man de giñ naa ci yàlla ni du ma du du ma dencaat jaasi joo xam ne yàlla moo ko bocc ci kaw ay ay ay noonu léegi nag loolu Abubakar ne ko Omar teggil sa làmmiñ wi ci Xaalid man de giñ naa ci yàlla ni du ma du ma du dencaat jaasi joo xam ne yàlla moo ko bocc ci kaw ay ay ay noonu nag loolu am na ci ak jaaxle moom Xaalid ndax cooli bari ba mu fa jógee nag dafa ñëw bi mu ñëwee wax ne ñu ngi sol benn manto nii kaalawu kaala gu rëy samp ci ay banti fet waaye bi mu ñëwee Omar dafa daal di ñokket ñoc ci banti fet yi dammute ko ni yow yaa ngi rey ab jullit takk jabar ñëw fi di fonton yi daañu la rey Xaalid lool waaye ba demee ci Abubakar wax ko njuumte ya am Abubakar jéggal ko dal di ko yabal ni ko na nga gaaw kon dem fekki Surahbiil ca foofee mu nekk ngeen dem ca Musaylimatul Kasaab kon loolu mooy gàttalu Xaalid bi mu ñëwee jéggalu bakar mu jëggal ko daal di koy booleek mbooloo ci muhaajiroon yi ak lansaar yi ñu daal di fekki Surahbil ca fam nekk ngir ñu mën a ànd dem ci Musaylima lansaar yi mi ngi ci jiital arm lansaar yi mi ngi ci jiital Saabit ibnu Qays muhaajiroon yi mu jiital ci Abu fa ak Zayd ibnul Xattaab léegi xaalit toog bu taax xaar leen ba ñu ñëw biñ ñëwee mu daal di ànd ak ñu dem Yamaama Musaylima bi mu déggee ni Xaalid mu ngi ñëw mu dal di euh, dajale ab armam ca fa ñuy wax Xaqriba arme bi matoon nañ ñeent fukki junni ci ay nit bañ xëyee nag ñaari armoo yi daje ci joorug Xaqriba ñu xeex fa xeex bu tar jullit yi mësuñoo gis xeex bu tare noonu ba dàq nañ leen sax ñu gañe nañ leen ci njëlbeen gi bi leen gañee ba mbooloo di daw ñenn ñi di leen soññaat kañuy wax saabit ibnu xays nii leen yéen de li ngeen tamal seen bopp ñaaw na lu jóg rek ngeen daw yéen jullit yi tamal ngeen seen lu ñaaw ndax lu jóg ngeen daw Seyd ibnul Xataab ni leen man de fas naa yéen dootuma waxatee kenn te du dañ leen a dàq mbaa ñu rey ma bu ma bu ma reyee nag su ma demee ca kanam yàlla dinaa xam la may lay Abu fa daal di jóg ni leen ay waa ji yéen waa ar nit niti alxuraan yi tey ngeen a rafetale alxuraan ay jëf te bañ a yem ci njàngum kese kese mi rek. mu mel ni baat yooyu nag baati soññe la yoo xam ne am na jeexit ci xeli nit ñi Xaalid jóg mel ni dafa yeesat daal di jóg dal ci seen kaw ak doole bañ arriéraat ba ba delloo leen gannaaw waaye ñoom noonu yooyu it nag xeexub kuy kuy xaru lañ doon xeex keroog. xeex bu tar yiisaa jullit yi gañ yiisaa ñoom ñu gañ noonu la doxee foofu lañ reyee Salim fa lañu reyee Abu Xosayfa fa lañu reyee Sayd ibnul Xattaab ak yeneen kilifa ci magi magi saxaaba yi Xaalid nag bi mu demee ba xam ne mu rey Musaylima képp moo mën a indi jàmm la taxaw temm ci ni nañ fexe ba ko dem songu leen ak daal di taxaw woote woote bi booba yaa muhammadaahu la ñuy woote yaa muhammadaahu kenn génnut ku génn rek mu faagagal daal di dal daal di jóg riir wuti musaylima musaylima daw ba mu dawee it ña topp ci ginnaawam daw Xaalid topp ci seen ginnaaw daal di yuuxu jullit yi ni leen dal leen seen kaw ñu songu leen ak wax ka ñuy wax Muhakkam ibnu Tufayl ca nit yi Musaylima la bokkoon daa di woote ne eh, yaa bani Xanifa gaaw leen dugg ci sardin bi dugg leen ci tokkoor bi dugg leen ci tokkoor bi Musaylima bokk ci mbooloo mi dugguñ ci tokkoor bi waaye ba ñu duggee ba mbooloo duggee ci tokkoor ba saxaabi yi ba ñu wax Barra ibnu Malik daal di wax jullit yi leen tàbbal leen ma ci biir tokkoor bi fekk dugg nañ ci tokkoor ba tëju moom mu ne tàbbal leen ma ci biir tokkoor bi ñu tàbbal ko ci biir tokkoor bi mu xeexe ñoom ba àgg ci bunt ba tëjji ko bi mu bunt bi jullit yi dugg seeg doole bi ñëpp duggee mu tëjaat bunt bi fab caabi ji sànni ko ci bitti ngir bëgg kenn bañ a xeex ba tarfa lool bañ rey Musaylimatul Kazzab mbooloo mu bari ñu rey leen daanaka noonu la ñu gañee Musaylimatul Kazzab bañ ko reyee xaalis sonn na ñu wax ko ko ni ko rey nañ ko mu ànd ak nit ñuy wër ci biir mbooloo mi ba gis mu xam ni mi ngi nii mu gis ni rey nañ ko wax nañu ni pertement yi nga xam ni bani fa pers nañu ko bari na waaye dañ ca takk juróom-ñaari junni nit rey nañ ko ca béréb bañ dëkkoon nekk muy xaqri ba gannaaw buñ dawee ba dugg ci biir tokkoor bi nattale nañ ña ñu faray mat nañ juróom-ñaari junni nit waaye jullit yi it diggante muhaajiroon yi ak lansaar yi rey nañ ci lu toll ci juróom benn téeméer juróom benn fukk te bokku ñi nga xam ne dañoo beleese ñu nga xam ne ñooy ñi siiw ci saxaaba yi rey nañ ci lu mat fanweer ak juróom-ñett moom itam lim bi damay jàpp ni du am importance loolu moo tax jarul di tudd seeni tur noonu bi Xaalid continuer ngañaay yooyu mu doon gañ ci wàllu càmmoo ñu sibxul jazira te fekk wet ya ca desit Aboubacar yebaloon na fa ay nit ngir ñuy xeex ak ña murtat ca côté boobu waa Bahrayn murtat nañ ka ñuy wax al Munzir ibnu Sawa moom la yonente bi yebaloon ca Bahrayn mu daan fa mu wuutu woon ko fa ci jamono jamono ba fi yonente bi di nekk rek moo fa nekk wuutu ko fa waaye nag gannaaw yonente bi tuuti rek la feebar dal di faatu waa Bahrayn daal di murtat ngirug bakar murtad fala abu bakar yabaloon al ala hadrami waaye moom itam mu xeex ñoom xeex bu tar ka ñuy wax Qays ibn Aasim ñëw fekk si ko Amr ak Saad ibn Tamim fekk si ko noonu yi lañ àndeek moom xeex-xeex bu tar ba fatxuwaat Bahrayn rey ña nga xam ne ñoo mursatoon doxalaat fa islaam daldi di bind lettre Abubakar yónnee ko ni ko li nga nu defal loon def nañu ko waa Amman murtat nañ foofa Jayfar ibnul Jalanda moo fa nekkoon ba mu fa nekkee nag Laqit ibnu Malik murtab daal di woote ak nubuwa daal di leen di not Jayfar yónnee ci Abubakar di sàkk ci moom mbooloo mu yebal fa Xusayfa ibnu Muhsin alxalfaani yi ci xemyar ak arfaja ñu fekki ko foofe ñu jàppale ko waa yaman murtad nañ ka wax Qays ibnu Abdi Yawas ca yaman moom itam bi mu déggee ni yonent bi faatu na dafa dal di murtat bi murtatee Fayroos ma fa nekkaloon yonent bi bind lettre Aboubacar leeral ko ko Qays yemut ci murtat waaye dafa dal di tàmbale di saare nit ñi di yàq bi Fayruz xamee loolu nag la daal di jóg sax taxaw temm ci xeex moom daal di yónnee ci bani xaqil ibnu rabia ak caak di sàkku ci ñoom ndimbal ko dimbalee mu dajeek xays ci peggu sanaa ñu xeex fa xeex bu tar ginnaaw bi la dàq xays ak ñam àndal gañe Hadramawt Hadramawt moom itam ku ñuy wax al Ash'as ibnu Qays dafa ñëwoon ci yonente bi ànd ak délégation Kinda jóge Hadramawt ñu jëblu sàkku ci moom mu yabalal leen ku leen jàngal sunna di jël asaka yi mu boole leen ak Zayaat ibnu Labit mu nekk fa waaye bi yonente bi faatoo Ash'as moom yi daal di firi jaayante gam jaayante woon nanguwuute jaayante ak Abubakar jëblu gam jëbloon mu daal ciy génn nanguwuute jaayante ak Abubakar Ziyaad ma fa nekkoon yonent bi daal di yeble ci Aboubacar wax ko ko Aboubacar yabal fa Muhaajir ibnu Abi Umayya te booba ma nga woon Sanaa ni ko na dem jàppale ji Ziyaad te dimbale ko ca ñooñee murtad kon bi loolu jàllee nag la Xaalid ibnu Walid eh, jóge foofu dem na Iraq ndax Aboubacar daf ko daal di bind leetar ni ko boo jógee foofu mën ngaa jàll Iraq fekk fa Musanna fekk Musanna ibnu Harisa ash-Shaybani bokk na ci ña doon xeex ca Bahrain ba gañe leen moom moo sàkk woon ci Aboubacar ni ko dafa bëgg dem Iraq pour xeexee ak ñoom ba Aboubacar jox ku ci ndigal ni ko na dem jiitu ji Xaalid jëkk mu ñëw danaa ko yebal mu daal di dem moom Musanna Aboubacar yónnee ci Xaalid ibnul Walid boobu ma nga yamaama ni ko na daal di dem Iraq ginnaaw loolu jeex na kon noonu la Xaalid demee Iraq ngir xeexi ak waa ak Perse yi moom itam béréb ya xam ne mooy béréb yi xeex ya daanaka dañuy tudd tur yi rek mawqiatu daati salaasil jaar nañ ca ak benn guerre boo xam ñu ngi koy tuddee xesnul marati wa xesnul rajul mawqia bu ñuy wax mawqiatul walaja ak mawqiatu ulays nahru dam yëpp ay xeex la yoo xam ne ay jaar-jaar la mawqiatu am xichia mawqiatu zatil uyun ca anbar fatxu ayni tamri yooyu yëpp ay béréb la yoo xam ni jaar nañ ca faagaagal ko ubbi ko daal di jàll doomatul jan bal jan dal jaar nañ fa ma nga ca peggu tabuk tabuk mawqiatul firaad yëpp ay béréb bi xare la yoo xam ni euh, ci Iraq la bi biñ jaaree ci béréb yooyu yëpp ba faagaagal ko ba noppi nag la Aboubacar joxe ndigal ci ni nañ dem saam pour fatxu ji ko kon noonu lañ jógee Iraq dem saam ci weeru safar ci atum fukki at ak ñett la leen jox ndigalul dem saam pour jàpp li jullit ya nekk foofu ca niti Rome yi daal di jox Xaalid ndigal ni ko nag bu dee Iraq moom mën nga fee bàyyi almusanna mu toog fi te yow nga dem waaye ginnaaw bu Xaalid takkee bagaasam jóge Iraq de bàyyi fa musanna dafa mel ni loolu dafa indi luy nuru ak néew doole ci jullit yi ba tax perse yi daal di jógaat ñoom itam yeeslaat seen laxasaay ngir yeeslaat xeex bi noonu la Musanna bind lettre Aboubacar di sàkku ci moom ndimbal ba lettre ba yeexee mu jógal boppam dem waaye ba mu ñëwee dafa fekk Aboubacar mu nekk ci tawat bi mu ko ko waxee Aboubacar woo Omar ba mu ñëw mu dénk ko ni ko na farlu ci dimbale jullit ya nekk iraq kon loolu mooy mujjub Abu Bakar ak yëngutu yim doon yëngutu ci xareeg ñi murtat ak yëngu yam doon yëngu ca xare ak persi ba nim yeblee saam nga xam ni kon muhimma bi itte ji gën a itteel Omar ibn Xataab ginnaaw bu mu wootoo Abu Bakar mooy yabal mbooloo ñu dem iraq ngir jàppale ji al musanna bokk na ci yu am solo yi abubakar def muy dajale alquran ndax lim bi mokkaloon alquran ci saxaaba yi bariwuñu woon ci biir ñàkk bari googu it dañ koo mokkaloon ni ñu ko déggee ci yonente bi rek waaye kenn bindu ko woon wala bokk ci ay këyit lañ ko daan bind lenn li ñu bind ko ci ay dari xar lenn li ñu am ay doj yu ñu rataxal bind ko ci lenn li ñu wut ay lu mel ni ay xob nii di ko ci bind waaye ñenn ñu ne daal dañuy seet lu ñu mën a am ci aaya rek ñu fexe ba seet nuñ ko bindee waaye dajubutoon fenn nag ci jamono yi abo jamono yi Aboubacar ci xilaaf ak Aboubacar ci la Omar ñëwee ni Aboubacar man de gis naa ni saxaaba yi yonent bi ñu ngi faagaagalu ci xeexe ni ñuy ni ñuy ni ñuy terteree ci ci ak dee ni lëppaa lëpp yi di terteree ci kaw sawara noonu la ñuy terteree ci di di xëccoo dee te ñoom dañoo yor alxuraan ragal naa lool bu ñu wàññikoo ko alxuraan réer ma bëgg nga dajale leen ñu dajale alxuraan Abubakar ne ko ah, def lu yonente bi defutoon Omar ne ko wallaahi loolu yi aw yow képp ci nekk baka seet xelam yónnee ci Zayd ibnu Saabit ba ñëwee a fekk ci ñi daan bind wax yooyu wax yooyu ci la bokk ci mokk ci ñi gënoon a mokkal jamono booba ci ñi gën a xereñ ci la bokk moom bu ibnu Saabit moom mu wax ko xalaat bi Omar andi mu ni cel boobu Omar a ngi ni cel Zayd jaar fa Abubakar jaaroon ni ko si lu yonent bi defutoon ñu di ko def Omar ni leen lu dul aw yow du leen ci fekk lii ma leen wax mooy dëgg waaye mu topp leen topp leen ba seeni xel dellusi si ñu d'accord ci ni kon nañu dajale alxuraan Abubakar dajale mboolem ñu mokkaloon ci saxaaba yi Zayd ibnu Saabit moomu ci la bokk ñu daal daje ci benn béréb kenn ku ne andi li nga yor ak la nga bindoon léegi nag ñii di tari ñii di xool mbind mi noonu lañ ko toppee ba dajalee lépp biñ demee ba àgg ci aayab laxat jaa akum rasuulu min anfusikum gis nañ ni mokkal nañu ko waaye kenn yoru ko ci mbind waaye bañ ko gëstoo ba sonn ci lañ fekk ka wax abi xusayma ibnu aws al ansari moom yor na ko ci mbind naka noonu aayab minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi boobu aayat am nañ ci ak wuute moom itam fa xusaymatub na saabit lañ ko mujj fekk noonu la ñu bindee alquran dajale ko daat koy teg fa aboubacar mu doon benn kaamil bi fi aboubacar jógee kaamil boobu omar yor ko gannaaw bi fi jógee doomam ji ñuy wax xafsa te doonoon soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yor loolu ci darajey Abu Bakar la bokk Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wax na ni alxuraan di ki ci gën a rëy ab yool mooy Abu Bakar ndax moo ko njëkk dajale kañ wax Abu Raja al-Xutaaridi wax na ni dama dugg biir Madina ma gis benn waay buy fóon bopp ab waay di ko wax ni ko jote nañ la suñ bopp giñ nañ ci yàlla ne bulul ko ne yow dana nu àl ko ma ne waaw kii di fóone ak ki muy fóon kum doon ñu ne ma Aboubacar mooy fóon ñu ne ma Omar mooy fóon boppub Aboubacar di ko sant ci xeex gi mu xeex ak ñi murtat xam ne bu ko defatoon dara du ko jar ci àdduna soxna Aïcha na bi fi yonent bi jógee day arab yi murtat naafiq yëpp daal di yoo xamte ko sama baay daj na loo xam ne bu ko doj doj yi dajoon sax boobu dañ toj abu hurayra ni wallahi allazi laa ilaha illa huwa law lam yustaxlaf abu bakrin radiallahu anhu maa ubida allahu fi l ard abu hurayra nee na naa ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur budul moom ni bu abu bakar wuutu wuutoon yonte bi kenn dootu jaamooti yàlla ci kaw suuf wax na ko benn yoon wax ko ñaar wax ko ñetteel yoon abu bakar bi waajalee ab armo te booba Yasid ibnu Abi Sufyaan jiite ko ànd naag di ko dénk ba ko ne yaa xalifata rasulillah imma an tarkaba wa imma an anzila ni ko yow xalifa bi yonente bi benn nga war mbaama wàcc Abubakar ne ko lastu bi raakibin wa lastu bi naasil déedéet du ma war te doo wàcc inni ahtasibu xataaya haasihi fi sabilillah ni ko sama yi ci yoon yàlla ko boole dem feebaree it nangu wut a faju ngir jox gum jox ay mbiram yàlla saxaaba yi biñ ko seet seet ni ko ndax duñ la wool ab docteur mu leen docteur bi gis na ma ñu ni ko lu wax mu ni dani leen in mu ni leen dani ma inni faadun li ma uridu mu leen loolu ma docteur bi wax man de lu ma neex laay def bokk na ci jikko yi gën a feeñ ci jikko yi Aboubacar tabe Aboubacar ku sàmmoonte la woon ak njàmbaar ku sax ab xol la ku dëgër ab xol la ku amul dogu la ndax tabe gi ñuy wax buñ ciy joxe misaal rek dañuy wax ni bu fekkee alalam fukki xaaj la juróom-ñeent yi joxe na ko jëkk ñuy jëkk gàddaay gi joxe na ko ci di di xett li ñi nga xam ni dañ leen doon bundu xataal ci jullit yi diggante ay Bilal ibnu Rabah ak ñu dem ni ñoom lépp lu mu am ci alal dépensé na ko ci xaswatu Tabuk ndax bi yonent bi wootee ni ñu ko ci gannaaw Omar moom dane bu may jiitu Aboubacar tey laa koy jiitu daal di xaaj alalam indi genn wàll gi waaye Aboubacar moom la mu yor lépp la joxe bu ñuy indi misaal ci ak njàmbaareem mën nañ ni amul benn xare bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare te Aboubacar fekkiwu ko ni ñu ko waxee ci ginnaaw bokk na ci ñu néew ña saxoon ci jamono yu oxat di di aar yonente bi bokk na ci ñu néew ña saxoon ngir aar yonente bi ci jamono yi xareb Xunayn Abubakar moo def bopp nen ba ci jeesem taxaw ci wetu baraag bi euh, néeg biñ xayma biñ sampaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ragal yéefar yi dal ci kaw bu dee xol xol bu dëgër maanaam sax sax am xel képp moo xam ne ab xolam dinaan tekk nii ba dara du ko déranger yonente bi mu faatoo ba ñëpp jaaxle bakar mooy ñëw wax ak ñoom dalal leen ni leen ku daan jaamu Muhammad na xam ne Muhammad faatu na bis ni ko tey ku daan jaamu yàlla nag yàlla mi ngi fii di dund te du dee te du dee mu ko bokk ci ak dëgëram arme Usaama boobu mu yebal te booba arab yi ñu ci ëpp murtat ñëpp amul jaaxle dogu gi mu doggu ci yabal ko mu dem loolu bokk na ci ak dëgër Abubakar daana wax ni ak muuste muuste ga gën muus ci ak muuste mooy ak ragal yàlla waaye dof gi gën a dofe ci ak dofit mooy ak kàccoor wax nañ ne dëggu gi gën dëgg gi gën a dëggu ci dëgg yi mooy al amaana fen wi gën a soof ci fen yi mooy alxiyaana Abubakar daan def saa bu masaan lekk aw ñam woo xam ne dafa lënt daf ko wàccu fay daal di wàccu looju ko ba mu génn mun yàlla yàlla laat laat laa laatu axis nii bi ma sharibathu l uruqu wa gaalat al ama yàlla yàlla boo ma jàppee li ci samay siddit naan ak li ci jaxasoot samay butit daana waxit ni mbir mii dara du ko defar lu dul la ko defaroon ceg njëlbeen kenn du ko mën a gàddu gàddu it ku ki ëpp ci yéen kàttan gën cee moom boppam maanaam nit bu nutul bakkanam eh, daanaka du mën a taxawal diine loolu la jubloo wax ku mu masaan di dénk dalay wax ni la yow sama mbokk sama dénkaan bii de boo ko boo ko boo ko boo ko jàppee bu la dara gënal dee daana wax nit ki saa bu yéemoo ci dara ci mbiri boppam bu ci yéemoo ci dara ci mbiri àdduna rek yàlla daf koy mere ba ba muy tàggoog taar boobee mu yéene boppam daana wax ne jullit yi rus leen yàlla man de giñ naa ci yàlla ne su may dem ca duus ba sax damay muuru ngir am kersa ci yàlla ragaloon yàlla ba bi mu demee ba faatu des ci doon wax naan ak neexoon ma doon ak garab goo xam ne dañ ma dagg rek lekk ma ma jeex daana jàpp ci catul làmmiñam di wax ne lii de lu ma dal moo ko teg Abubakar daan def bu waree ci ak gileem ba yar bi wadd sax day yësal gileem gi wàcc dem jëli yar bay door a yegaat buñ ko ne waaw yow mënu woon wax rek ñu jot li yar bi mu ne yonente bi moo ma digaloon ma bañ a laaj nit ñi dara nga xam yonente bi tere gu muy tere nit di laaj nit dara ba mu ko ko teree àgg na ci yar bu wadd muy jox ma ko sax ko def kon ñooñu yàlla rek lañ seqoon ak nit ñi daana wax ni jox nañ ma mbir mi gëmuma leen su ma jubalee dimbali leen ma waaye su ma wàccee aw nag na ngeen ma jubbanti léegi Aboubacar mi ngi faatu ci diggante timis ak gee ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru jumaadal axira am na ñu ni ci juróom-ñaareelu fan ci weer woowu ay werante li ci am ci atum fukki at ak ñett ci gàddaay mel ni aw tàngoor moo ko sóoroon tawat ji metti mu daldi joxe ndigal ci ni na Omar jiite julli gi foofu it la diisoo ak saxaaba yi ni leen dafay bëgg a teg Omar mu wóotu ko gannaawam waaye ñu ne ko doy nga nu kootaan rek baax na la faatoo radiallahu anhu ñu denc ko ci néeg soxna Aïcha mu dend ak yonente bi sallallahu alayhi wa am na ci ay at juróom-benn fukki at ak ñett mi ngi wuutu yonent bi diirub ñaari at ak ñetti weer ak fukki fan radiyallahu anhu kon ci waxtaan yi di ñëw danañ ci waxtaane sayiduna omar ak ni mu jàllalee xilaafatul islaam gi di ñaan yàlla mu defal ñu ak dégg ak topp di ñaan sëriñ bi mu yàgg fi lool te amu ko wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.